amul kenn ku lay xiirooti luum nan ci Mustafa wala yaara yum ma yaay borom xaas ni Mustafa Muhammadu Abdallahi ax nii Mustafa ña daa xiiru mat seen gëñ ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ nañ ko Mustafa ñada jabarak ñada xaatima ñada luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi mustawa sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ko wuy seek ka far jekki mustawa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw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 sëriñ bamba tuubal nan la ñëw nan di jaayikum te salaaw dootu dellu wel nan ci Mustafa ndax ganaar ak nenam yaak siqiya cuuj kulluhum borom gamba baa moom lépp naaw tal num Mustafa Cheikh Mustafa mi maay mujjisaatam fardil lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi Musa bi Mustafa hadiyatuna tasbih moo xam nañ ne lanu waroon def ëpp na lii waaye nag lii màndarga rek la mu wane ne ànd na noog yow ci liggéey bi ci sunu xol di ñaan yàlla sama borom jalla jalaaluhu wa azza gën laa doole dimbale ak mucc ak dolli ko ba fi nga bëgg fi nga bëgg liggéey bi àgg li nga bëgg a liggéey sa maam ju baax ci lépp nga ma ne ko ni nga ko bëggee te doo am benn gàllankooru baatin doo am benn gàllankooru zahir kàddu yi rek la ñuy nañoon nañ ko fi wax ñu ngi lay nuyu baax mbakki yàlla yàgg te wér auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wala hawla wala quwwata illa billahi alil azim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo siyaare leen eh, di leen ndokkeel di leen màggal bu baax a baax comme niñ ko baaxee baaxoo def ci at mu jot ci waxtu wi bu ñu weeru baraxlu teroo ba am fukki fan ñu dajaloo fii ci daarul islaam danki ci ndëgalul Cheikh Moustapha moom sëñ Fallu eh, ngir fàttali eh, fàttaliku way juróom wa ci ay ñaan ci ay bernde ci ay salaatu ala nabi ay jàng alquranul karim mu mel ne kon tey jii ginnaaw bi nga xamante ni bi eh, teewaat nañ fi ci turu mboolem daayira bi nga xamante ni bi ñoom la ñuy wax turandooy sëñ Fallu yi ñu ñëwoon fii doon siyaare Cheikh Moustapha Fallilu mbake Euh, ci mboolem ñi nga xamante ni bi ñoom lañ duppee waajuram mu tedd wa mu mel ne kon am na ñoo xamante ni bi teew si nañ tey euh, ndax yàlla man loo na leen ko waaye nag di yàlla tërale jamono mooy am na ñoo xamante ni bi ñu ngi ci gox yu fasantikoo ba tax na tey ji yàlla dogal na mënuñoo teew am na ñu nekk ci biir réew mi waaye ñi ngi ci àll bi am na ñu nekk ci fii ba Europe ñoom ñëpp nag euh, ñii leen fi teewal tey ji mooy ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu mën a teew doon siyaare Cheikh Mouhamadou Fadal di ñaan sa borom tabaraka wa taala di siyaare Cheikh Moustapha di ñaan sa borom tabaraka wa taala mboolem li nga xamante ne bii jàng nañ ko fi ci ay alquranul karim jàng ko fi ci ay salaatu ala nabi def ko ci ay bernde di ñaan sa borom tabaraka taala nangu ko te jotale ko ca ruuxu Cheikh Mouhamadou Fadal eh, Mbacke mi nga xamante ni bi moo ñu fi dajale tey ji ci ndigalam waaye ginnaaw loolu it ñu ñaanal moom mi nga xamante ni bi moo fi toogee jataayam sa borom dëgëral ab taxawaayam sa borom suturaal ko yiir ko ba mboolem li nga xamante ni bi naal na ko liggéey ci lislaam ji mboolem yéen yi nga xamante ni bi waajuram bu tedd wa amoon na ko sa borom defal ko mu ko ci anam wam gën a taw feexe ak anam wam ko wam ko gën a bëgge eh, mu mel ne kon bis bi bis la boo xamante ni bi kenn ku nekk ci ñun war na koy gën a eh, Euh, bàyyi xel war na koy gën a euh, jàppaat ak fukki loxoom ndax euh, jëmm jañ koy defal muy seex Cheikh Mamadou dal di suñu turandoo desee luñ ko ludut lii te Cheikh Moustapha mii wax dëgg yàlla taxawaayam ci bis bi rafet na lool mat na sëkk ñun tamit ñi nga xamante ne bi ñooy turandoo yi tamit kon ñuy bàyyi xel loolu ba waxtu wu nekk rek ñu ci jéem di doxee suñ kemtulaayal kàttan di ñaan sa borom nangul lépp te defal na ci ay tawfeex ak sutura ak barkeek ngëneel ci barke Seexul ñoo ngi leen di soññi comme ni ma ko junjee ci biir wax yi léegi waaye soññ gi tamit maa ngi ci jiital sama bopp ndax ni ma ko waxee léegi jëmm ji nga xam ne moom lañu koy defal muy Cheikh Mamadou Fadal mënaluñ ko lu dul lii muy di ko ñaanal di ko fàttaliku ci ci ci ci ci ci alquranul karim ci salaatu ala nabi ndax jëmm la joo xamante ni bi jëmm jam xëy na bi mu fi nekk ay tuut tànk lañ waaye luñ doon li ñuy doon doon doon tuut tànk yaakaar naa taxawaayam ci lislaam taxawaayam ci eh, diine eh, li ñu doon doon doon gone dégg nañ ko am na luñ ci xam ak eh, rafetam rafetu nekkinam ci diggante mag ñi nga xamante ni bi ñoom la noonu la ñoom la fi jamonoonteeloon mag ñooñu wax dëgg yàlla seen lépp mat na seen lépp rafet na kon ñun ñi nga xamante ni bi ñooy tuut tànk yi war a toll ci liggéey li ñu war rek mooy fuñ toll ñuy bàyyi xel loola ba tax na luñ jàpp luñ jàpp ren rek.